bés yu ñu yaakaare mbaax la bés yu ñu yaakaare dooleeku la ndax lan ndax ñun ñii ñëpp toog ci ron mbaar mi amul ci kenn kenn kenn ku nangu ñu wax la ne maa la gën a bëgg yonent kenn ci ñu nanguwu ko donc woon yonent noonu ñu ko bokkee ñun ñëpp noonu lañu ko bokkee ñun ñëpp kenn tanewu ci kenn ah ñu ngi gàmmu taxut ñu moom gàmmu taxut ñu moom yonent ni ngeen ci kontaanee noonu lañ ci kontaanee ñun ñëpp te bés yi bu ñëwee di gis ne jullitu Sénégal gouvernement Sénégal société Sénégal yi yëpp da gis ne ñu ngi ànd di participer ci bés bi ñii ngi joxe seen alal ñii ngi joxe seen xam-xam ñii ngi joxe seen temps ndax xeet bu nekk dafa war a am num tabaxoo xeet am na noo xam ne bu ko tabaxooyee du xeet waaye am na xeet boo xam ne bu ko tabaxooyee dina xam ne mi ngi tabax xeetam mooy lan il faut xeet tabaxu ci gëm yàlla ci gëm yàlla il faut xeet tabaxu ci am mémoire il faut xeet tabaxu ci am njiit ah, te loolu yëpp bu ñëwee ci lislam dañu fekk ne am nañ ko fa ah, am nañ am nañ yonent Yàlla Muhammad muy muy muy suñ njiit muy suñ njiit ci lu nekk fàttaliku ko daf ñuy fàttali naka la nit di nekkee ku kawe fàttaliku ko mooy fàttaliku jikko yu sell yi mu indi ci àddina bi fàttaliku ko mooy fàttaliku jikko buggante bi mu indi ci àddina bi fàttaliku ko mooy fàttaliku xam-xam bi nga xam ne moo tax mu tasaaroo ci àddina bi ndax njëkk yonent Yàlla Muhammad xam-xam boo ko mën a amutoon waaye nag dañ ko daan nëbb yonent Yàlla Muhammad mu ñëw tasaare ko fas daa bi maa tuumaru wa a'rid anil mushrikiin li ma la sant weexal ko na fees na fees na na ko ñëpp xam donc ci moom la xam-xam ñu ko tasaaroo donc ñu ngi tasee pour loolu pour màggal ko pour fàttaliku suñu bopp pour fàttaliku na ñuy mën a tabaxee suñu bopp ndax boo fàttalikoo sa bopp boo fàttee sa bopp di nga jëli jikko yoo xam ne du yow comme lii xew Sénégal léegi ñu ngi jël yoo xam ne dëgg-dëgg dañoo fàtte suñu bopp moo tax ñu jël ko mais buñ fàtte wutoon suñu bopp dinañ xam ne jikkoo xastante amul ci ñun jikko saagawante amul ci ñun jikko xeebante amul ci ñun yooyu yëpp yu foraatule indi ko fi ngir euh, dara ay situation ñoom ñoo xam waaye yàlla nañu ko yàlla teggil yàlla nañu ko yàlla teggil ñu ngi kontaan ci bés yu ñu jotee gan yu tedd yi ñu am jóge fu nekk ci àddina bi ak itam yéen ñi itam gouvernement euh, yëpp ngeen ñëw toog ñu daje te ñoom ñëpp ay responsable lañu waaye ñun ñëpp ñu ngi toog ci ron mbaar mi am ndax yonent yàlla Muhammad bon yonent boobu mooy kuy doon sang moo tax nga doon sang Cheikh Ibrahima euh, jàngal na nit ñi kenn mooy yonent yàlla Muhammad jàngale boo xam ne yëpp a leer boo ko xamee di nga xam ne kii rek moo jara moo jara moo boo ko xamee di nga xam ne yonent rek jara roy moom ci boppam sax bëggut ko ko roy yonent la bëgg nit ñëpp versé wu ci moom loolu la doon dox loolu la def ci loolu la jeexal dundam yëpp ba tax na alhamdulilah rabbil alamina daaraam mokkal na bu baax a baax mokkal na lool lool alhamdulilah maa ngi wax euh, sama moroom yi jànkatu tubaab yi may leen ñun bu ngeen ñëwee ci suñ daara ji mokkal nañ suñ jukki waaye yéen nag lu ngeen mokkal ah yéen lu ngeen mokkal lan la ah ñu ngi yaakaar itam ñu mokkal bu baax a baax a baax nga xam ne Sénégal fii mu toll ñu gën ko jàngaat ak doore ne ñu ngi toll ci ay séquences yoo xam ne métti na te du ñun bon laaj na xereñ monsieur le ministre wax naa ne monsieur le ministre de l'intérieur bu xereñutoon keroog le 19 xaw ma la 9 xaw ma le 19 su amutoon xereñ ba mën a romb ci loolu kon musiba dina am Sénégal kon ñu ngi lay ci sa xereñ boobu nga xam ne jaar nga ba affaire bi fay nam jaar nga ba xay yu ñu doon séntu yëpp gisuñ ko donc noonu leen nit loolu mooy xam-xam xam-xam dafay am feeñuwaay ah waaye xam-xam boo xam ne da koy amale sa bopp rek loolu du xam du dara mais xam-xam da koy feeñal ci mbedd mi nit ñi xam ko dégg ko jàng ko comme ni yonent Yàlla Muhammad nekkee ci mbedd mi xale yi mag ñi jigéen ñi ñëpp a ko xam kon nekk xam nga xam na yonent Yàlla Muhammad parce que pour ñëpp la xam-xam itam pour ñëpp la boo ko amee génne ko ci mbedd mi nit ñi xam ko jëriñoo ko gis ko yal nañu yàlla may loolu ñu ngi gërëm président Macky ci taxawaayam ci euh, du ma kër diine yi rek parce que kër diine yi tam mooy senegal ah waaye ni taxawee ci Sénégal euh, ba tax na Sénégal buy seetlu di nga xam ne Sénégal mu ngi am évolution ah euh, yu métti yi ngay gis nii yëpp résultat wu évolution rek la évolution dafay ànd ak violence dafay ànd ak lu nekk dafay ànd lu nekk bon gis nañ ne loolu mu ngi am bon donc Sénégal a ngi dooleeku Sénégal a ngi jëm kanam Sénégal a ngi bëgg xam li muy jàng lu mu koy doyee ak lu mu koy jëriñ yooyu yëpp agsi nañ ci te loolu yëpp présence su Macky Sall ci Sénégal ci la feeñee ci la feeñee amoon na waaye feeñutoon waaye ci présidence su Macky Sall ci la feeñee ci la feeñee ba nga xam ne. Euh, boo demee fi mu nekk nii assemblée nationale dañ naan kan moo raw loolu yëpp ku nekk xam ne ni évolution la te jàngale la te jàngale yi bokk na ci yu koy indi ah, ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy gërëm ñu ngi bëgg waxtu wu nekk yàlla di ko yokk ak ñu koy dimbale ñu dimbalanteeg moom ngir Sénégal du ngir seen bopp ngir Sénégal parce que Sénégal soxla na doomam fu nekk soxla na doomam ci tool yi soxla na doomam ci école yi soxla na doomam ci daara yi soxla na doomam ci gàmmu yi yooyu yëpp Sénégal soxla na fa doomam doom boo xam ne daf koy matee doom boo xam ne daf koy mën a def bëgg nañ ko monsieur le ministre ci loolu la nekk di di di jéem yéen tamit ci ngeen nekk di jéem bu ko defee ñaari ñaari ñaari yooyu yëpp bu dajee yàlla mooy wax ne man may suturaal koo xam ne man ci man la amul kenn ku dul man man yàlla maa koy suturaal maa koy taxawal donc woon yàlla na yàlla suturaal yal yàlla taxawal Sénégal na yàlla dimbale Sénégal barke Sénégal yàlla ko yàlla génne ci loxo doomi Sénégal yi Sénégal réew mu am barke la ah ndax bisu tey bii rek woon la ne réew mi boo amutoon barke eh, yi ngeen fi gis yëpp di ngeen ko fi étranger yi ngeen ki yi fi gis di ko fi gis waaye barke taarix Sénégal bu rafet moo fi xëcc ñi yëpp indi ko kon nag loolu yëpp war nañ ci bàyyi xel bu ko Macky di dimbale Macky dimbalewut kër diine mais taarixam lay dimbale histoire am histoire réewam lay dimbale histoire réewam la bëgg a feeñal waaye deful rek pour kër sëriñ si kër sëriñ si benn lañ rek ci kër Sénégal yëpp Sénégal yëpp bëgg nañ seen kër rafet mais nag dafa am loo xam ne boo ko defee da ngay fàttali nit ñi seen taarix fu ñu jaar ba agsi fi ñu agsi def fa lu baax pour yee nit ñi jar na ko ñu ngi lay gërëm bu baax monsieur le ministre ak délégation bu tedd bi nga àndat ñu ngi gërëm itam aussi euh, président une fois ne ko gis nañ liggéeyam ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yokk fit yal na ko yàlla yokk leer yal na ko yàlla yokk eh, xam-xam te wax naa ko benn bés ne ko bul ragal dara boo ragalee dara sax dugg ci boo ragalee bul dellu gannaaw duggal ci li nga ragal ah di fa fekk yàlla mu nekk nga xam ne mooy sa ndimbal jërë ngeen jëf ci seen teewaay merci beaucoup ñaan rek ne sa ñaari doom Serigne Aliou Deme ambassadeur suba ba léegi eh, cercle diplomatie bi ambassadeur yi bi ñëwee mu ngi ànd ak ñoom sa doom Modou Ndiaye Rahma ñoom it dañoo tardé ngir yeneen kii waaye moom it dafay wax ne man politicien la waaye bu may def medd na sama mbëggeel ci sëriñ bi moom lay def waaye nag politicien